nataal fukk ak juróom bi mu dekkee Jésus feeñu na ñenn ci ay taalibeem wax na ak ñoom bokk na ak ñoom lekk tomas di kenn ci ndongoy Jésus yi bi mu déggee xibaar bi mënul woon a gëm ni Jésus de deewul mu daldi ne mënumaa gëm wax ji fekk gisuma daaj daaj yi ci loxoom yi laal gaañu gaañoom yi Jésus feeñu ko daldi ni ko gis firnde yi moo tax nga gëm cant ñeel na ñi gëm te gisuñu